bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta alalimu alhakim allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5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 ñu jukki si ñaari xéewal ya nga xamante ne buur yàlla moo ñu ko dottil mu may ñu ko mu doon kado joo xamante ne duñu taay di ko fàttalantik mbokk yi ndax moo ñu ne ci téere bi la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sante ci xéewal ya ma di xéewalal ma yokku leen bu ngeen reconnaître xéewal ya ma yenkewal ma yokk leen ji kon nga déggee ci maana aaya bi yow julit bi dal sant yàlla saa ne ci xéwal yam la xéwalal bokk na ci xéwal yooyu bari nañu lool ndax loolu la wax mu ne wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha bu ngeen fi nekk di lim xéewal yeleen yàlla xéewalal du ngeen ko matal du ngeen ko peek waaye doy na rek ñu jukkil leen ñaari xéewal yi nga xamante ne moom lañu buur yàlla tabaraka wa taala benn bi di xéewalu julli suba ba julli ci daan joxe waxtu su néew ci ginnaaw gannaaw bu ñu dégg noddukat bi di noddu naan assalaatu xayrun mina nawm julli moo gën nelaw bi ngeen nekkee kon loolu di njëlbéeni xéwal ci askanu jullit ñi gannaaw bu ñu yàlla baaxee ñu joxe waxtuy fajar te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñuy wax ci maana xadis ne gën ci julli ci waxtuy julli yi fa yàlla mooy julli fajar wala julli suba yowmul jumaa waaw bésu yowmul jumaa gën ci julli ba gën fa yàlla waxtu yu julli ya am importance fa yàlla yonent bi nee na mooy bésu àjjuma rawatina waxtu woowu nga joxe ko ci mbooloo bi ba léegi buur bi tabaraka wa taala gannaaw bu ñu xéewale xéewali julli suba ñu remplir audience bu njëkk ba jaar diggante yàlla ak doomu aadama bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ñu baaxee ci maanaa xadis ni jaambi de saa yu mu taxawee ci kanamu boromam mu daldi tudd màggaayu yàlla ne allahu akbar saa yu mu jàngee fatiha yàlla da tontu saa yu mu ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla da ko naan sama jàmbi tagg na ma sant na ma cant woo xamante ne màggal na sama dayo jox na ma sama gëdd wone na ne mboolem xeetu cant yi man yàlla rek maa ko yeeyo yonent nee na bu jàmbi ne arrahmaanirrahim nee na yàlla buur bi da ko naan sama jaam bi delloo na ma sama moomeel delloo na ma sama moomeel yama moom fii ci dundu àddina ndax man may boroom xéwalu àddina waaye delloo na ma sama moomeel ndax man may xéwalu keroog bis pénc boroom xéwalu àddina du kenn ku dut yàlla waaye boroom xéewalu keroog bés pinc du kenn kudut yàlla yenent bi neena doomu aadama bi saa yu jàngee aaya ci fatiha buur yàlla da koy tontu tontu tontuwin bu nga xamante ne amaana yow doomu aadama bi doo ko dégg waaye yàlla ma yónni yonentu bi yonentu bi nee na la saa yoo jànge aaya bi buur yàlla am na lam lay tontu warnga ka kaa war a mën a gëm nga jàppee ne noonu la ba tax na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli boobu doomu aadama bi di julli mu doon discussion bay jaar diggante jaam bi ak boromam ngay wax yàlla di la tontu waaye lala yàlla di tontu yow doo ko dégg yonent bi tënkal la ko callu ko yàlla xamal kon yow war nga xam ni audience boobu ngay am sa digganteeg sa boroom du lu ndaw du audience bu tuuti ba tax na loolu yëpp xeetu xéwal la yàlla baaxe xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na loolu du njëlbeenu xéwal ci kuréelu jullit ñi ñaareelu xéwal bi mooy xéewalu nelaw ba nga xamante ne buur yàlla daka baaxe kado jox ko bépp mbindaafoon wi nga xamante ne yaa ngi ci kaw suuf si di dukkat kon xéewal boobu yàlla joxe mboole mbindaafoon yi ñoo ci bokk yam di xéewalu nelaw yàlla buur bi tabaraka wa di wax yonent bi ci suñu téere bu mag bi buñu ñu demee xool ruum suñu borom bi tabaraka wa di wax yonent bi ne ko wa min aayaatihi bokk na ci sama kawtéef man yàlla manaamukum bil leyl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi wan nahaar bokk ci kawtéef yama yore man yàlla bëccëg bi mën na leen fang leeral leen jaww ji leeral leen espace bi wabtighaakum min fadlihi ak càkkutéef ba ngeen di sàkku ngeneel ba leen yàlla tasal ci kaw suuf si yàlla ne le ma wax nii ci aaya bi inna fi daalika mu ngi ci la aayaatin kawtéef boo xamante ne li qawmin ñeel xeet ñoo xamante ne yasmaun dañuy lépp la leen yonent bi wax waaye lépp la leen alquran wax wa qaala taala bi léegi buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii duñu joxoñal ci beneen aaya ci suuratul zumar buur yàlla ne allahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo yore kattan yam leen bëgg wax nii ci aaya bi allahu yàlla mooy buur bi nga xamante yatawaffal anfusa moy faat bépp bakken xiina manaamiha ginnaaw bu muy waaja suubu ci nelaw bi maanaa yàlla mooy nelawloo mooy roof dee bu ndaw ci bépp bakken bay waaja nelaw bakken ji moo xam bakkenu liir la bakkenu waxambaane la bakkenu jànq la bakkenu bakkenu góor la wala bakkenu ku jigéen moo xam bakkenu ko am alal la wala bakkenu pauvre bi la yàlla ne man yàlla may roof oxygène nelaw ci bëpp bakken ba ñuy waaja suubu ci dee bu ndaw te moy nelaw yàlla nee ma daldi programme ñetti bakkan bakken bu njëkk bi mooy wallati lam tamut fii manaamiha bakken joo xamante ne bëgguma kaar rey bëgguma mu faatu ci jamono ba muy nelaw bakken jooju dama koy bàyyi mu nelaw nelaw bu digg doomu wax nañ ne mooy nelaw bi nga xamante ne du nelaw bu xuut du nelaw boo xamante ne jarul sax ngay sangoo mbàjj walla ngay sangoo sër jarul sax ngay tëdd ci kaw lal jarul sax ngay tëdd ci suuf mën ngaa toog di jayaxu di sëngéem ba nga doyal ci nelaw yooyu ndax am na ñoo xamante ne bu ñuy singéem di jayaxu fa la ñuy def seen nelaw yu xóot yeeg lañu bëgg ci nelaw bu ñu jayaxoo tuuti rek ñu singéem rek doyal nañ ci nelaw am na ñu yàlla bindee nii yàlla ne fa yumsiku lleti qada alayha al mawt yàlla nee na ba léegi bokkoon ci samay programme yama programme bakken yooyu man yàlla may jàpp may téye may faat bakken jama sopp ci moom mu dee waaye ñetteelu bakken bi mooy wo yursilul oxra ila ajalin musamma man yàlla may delloo bakken jama soob ci jëmma bu mu bàyyeekoo ba keroog waxtu ba ma àppalanteeg moom bu jotee ma daldi ko faat yàlla ne ñetti bakkan yi ma la wax nii ak anam ye ñuy mel inna fi daalika mu ngi ci yooyu ma la wax yow jullit bi la ayatin kawtif yoo xamante ne li qawmin ñeel xeet yoo xamante ne yatafakkaruun dañuy xelal kawtifu yàlla ak kawtif ba nga leen anjali yow yonent bi sallallahu alayhi wa kon li yëpp da kawtif joo xamante ne programme la ba yàlla di programmer amul kenn ku koy programme ci bakkan yi waaye yàlla moo koy tiralee nii keneen ku dul yàlla mënu ko xamoo ko te doo ko mun a am te doo ko mun a def sax danga xamul sa bi di ko def kon yàlla mi ko am man ko sañ ko mu di ko def kon bu ñu waxee moom mooy programme bàkke nii comme nañ leen ko waxee nii kon kenn du moom jalla wa ala ci alquran ba mu ko waxee mooy téere ba mu wàccee ci suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam yenn jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot buur yàlla suñu borom tabaraka wa daa bëgg saa su ne doomu aadama bi tàllal ko loxom mu di ko ñaan di ko ñaan ñaan joo xamante ne moom dong moo ko man moo am te maa joxe ba tax na ñu nit ngi ñaan buur bi tabaraka wa ci bés ni ki tey ak weer wi ak waxtu bi ñu naan ko allahumma habib alayya sunnata nabiyika wa tawaffana ala millatihi wa aizni min mudillatil fitan yal nañu yàlla defal la ñaan bi di tekki amin ya rabbal alamin moo ne yow jullit bi del tàllal say yoxo di ñaan yàlla ne ko allahumma buur yàlla ax yii nii ñu lay ñaan yàlla nga ñu dundal ala sunnati nabiyika ci sunna sa sa yonent bi bàyyi fii yàlla nga ñu dundal topp sunna sa yonent bi wa tawaffani yàlla nga ñu faat ala millatihi ci yoon bu mu xàlli tracé ko bàyyi ko fi way ñu lay ñaan wa izni min mu di mudillatil fitan yàlla nga ñu musal ci ñuy réeralaate ci mbooleem xëytu fitna yaseen réeralaate woowu lamboo mbokk yi nañ leen bokk wax amin ndax la ngay ñaan yàlla nekkoo ko dundal ci topp sunna su yonent bi sallallahu alayhi mooy lu wóor nga di ko ñaan bi léegi ne ko yàlla nga ma faat ci yoon ba mu xàlli yoon ba mu tracé bàyyi ko fi loolu tamit mooy lu wóor ndax ñàkk topp sunna yonent bi cànkute la waaye ñàkk tënk sa ci yoon bu mu tracé loolu tamit cànku te gënu koo ëpp waaye nag ñaan yàlla mu dundal la ci topp sunna yonent bi loolu amul dara lu ko ëpp sens waaye ñaan yàlla bi léegi mu faat la ci yoon bu mu fi bàyyi amul dara lu ko ëpp sens képp kuy ut sens képp kuy ut texe ñaanal yàlla mu dundal la ci topp sunna yenuntu bi waaye nala la faat ci yoon bu mu xàlli te mu bàyyi ko fi waaye nag nanga sàkku ci yàlla ñaan ko mu musal la ci mbugalu ci mbugalu ña nga xamante ne dañoo nekk fi di réeral nit ñi di leen jëlee ci leeru alquran ak leeraayu sunna yonent bi di leen yóbbee ci lëndëm boo xamante ne amul dara lañ ci am comme tegtal kon ñaanal yàlla mu musal la ci kat ñu mag ñi nga xamante ne dañuy réeral nit ñi seen réeralaate yow yu fees dell ay fitna yoo xamante ne kenn mënu koo xam kenn mënu koo xayma kon la nga bëgg nii yàlla defal la ko moom dong moo ko man ñaan ko mu defal la ko la nga ragal yàlla dong moo la ko mun a fanqal ñaan ko mu fanqal la ko kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla dundal ci sunna yenent bi wala yàlla nañu yàlla faat ci yoonu yenent bi waaye yàlla nañu yàlla musal ci mboolem laate kat ñu mag ñi nga xamante ne seen réeralaate yooyu ñuy réeral nit ñi defal lamboog fitna joo xamante ne nitki ki si noppale ko yal nañu ko yàlla musal amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot hadis ba ñëw ci suufu ñaan bi mooy jëlee nañ xadis bi ci ibnu abbas radiyallahu anhu ibnu abbas nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa raaytu nnabiya sallallahu alayhi wa sallam yataxarra siyaam yawmin fadluhu ala gayrihi illa haadha alyawm yawma aashura wa haadha ash-shahr ramadan rawahu buxaari mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot sahaabi bi di ibnu abbas radiallahu anhu nee na yenent bi sallallahu alayhi wa de man de man ibnu abbas gisuma yenent bi muy gën a farlu di góor góorlu di woor bés bi ëpp bés bi ngéneel lu dul bésu asura waaw la ma gis yenent bi di góor góorlu di ko woor mu doon bés bu am ngéneel lu ëpp asura lu dul weeru koor nee weeru koor dong la gis ne moo ëpp valeur fa yenent bi ci ni muy góor góorlu taree ko gën koo jox dayo mu di woor bés boobu mooy bésu ashura bu weer koor jàllee daal weeru tamxarit fukkeelu fan bi di ashura nee na ci la gis yonent bi sallallahu muy góor góorlu di ci woor waaw nam koy wooree nag képp ku ko fekkee dangay xam ni kii ku jox bés bi gëdd la te moo ne bés boobu la yonent Muusa alayhi salaam woor ngir sante ko boromam subhaanahu wa keroog ba yonent bi demee Madina ci gàddaay ba mu fekk yahuudi ñuy woor bés boobee baleen yonent bi laajee mais koor bi ngeen di woor ni lu ko waral ñu ne ko bés bi da di bés bu mag ci ñun ndax bés bi la yonenti yàlla Muusa muccee ci buur bu kàccoor ba mu tombeloon jamono di firawn keroog ba ko yàlla musalee ci mbugalu firawn kon Muusa alayhi salaam daa jël bés bi mu di ko woor ngir sante ko boromam subhaanahu wa taala bi ne man maa leen gën yey ci muusaa yonent bi daldi woor bés bi mu digle ne nañ ka woor kon yow jullit bi yow mi bugg xam ana lu tax yonent yàlla Muusa yàlla jox ko victoire ci kanamu buur bu kàccoor ba tollu ni Firawun ñu ne la boo demee xool ca suuratul ibrahim di fa fekk buur yàlla tabaraka wa di fàttali waa banu israil mu ne leen ci làmmiñu yonent yàlla muusa yàlla di ko rencontre li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo victoire ba yàlla baaxee yonent yàlla Muusa ba woor fukkeelu fan ci weeru tamxarit yonentu bi woor ko ngir moom moo gën yey Muusa ka ña toppoon Muusa mais la tax yonent yàlla Muusa woor bés bi mooy daa am victoire bu mag ba ko yàlla may ci kaw Firawn buñ ne victoire ba nga am ci sa kaw noon xanaa du dafa am jongante bu ngeen di def waaye bii du boobu bii lu doon ana lu tax yàlla may yonent yàlla Muusa victoire ci kaw Firawn la tax yàlla def yonent yàlla Muusa gañe Firawn képp ku ko bëgg xam topp ñu ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ñu leeralal la ko ci aaya alquran ba nekk ci suratul Ibrahim boo demee xool ci aaya bi yàlla suñu boroom tabaraka wa taala nee na yenentu bi ne wa id qaala muusa li qawmihi udkuru nicmat allahi alaykum id anjaakum min ali firawna yasuumuunakum suu al azab wa yuzabbixuuna abnaa'akum wa yastaxyuuna nisaa'akum wa fi daalikum balaaun min rabbikum cadiim buur yàlla tabaaraka wa taala daf ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow sama ndaw fàttalekul keroog ba yonent yàlla Muusa waxee xeetam ne leen kon yonent yàlla Muusa da doon discuter ak xeetam ne leen udkuru na ngeen fàttaleku na ngeen tudd nicmatallahi aleykum xéewal ba leen yàlla xéewalal xéewal boobu mooy ban xéewal it keroog ba yàlla anjay naakum bam leen musal is anjaakum keroog ba leen musal keroog ba leen yàlla may victoire min aali firawna ci waakiru firawna ak firawna ci boppam ci toroxtaange bam leen doon toroxal yasumuunakum mu di leen doon teg coono joo xamante ne suu al azab mooy mbugal bu gën bon ci mbugal yi bokk na ci mbugal yooyu yu zabbi wa yu zabbihuna abnaakum firawna daanoon na rey seen doom yu góor ñi wa yastaxiyuuna nisaakum daanoon na bàyyi seen doom yu jigéen ñi ñuy dund yàlla ne wa daalikum la nekk ci li ma leen wax nii yow yonent bi li nii Muusa lii muy renkontel xeetam nii balaa un albalaa ju mag la joo xamante ni min rabbikum fa seen boroom la bàyyee ko adim mu doon albalaa ju mag musiba gënu te musiba ba yàlla renkontel yonent bi ne waakiru firawna noonu lañ doon toraxalee waakiru Muusa kon nootaange dafa am ci pénc bi ci jamono ju jàgg buur bu kàccoor bi di firaawon boo jàngul alquran mu di nettalil histoire bi doo ko mën a xam amul kenn ku kàccoore ni firaawon waaye amul kenn ku teg coono xeetam ku tollu ni firaawon ba tax na keroog ba yàlla namee mbir bi dagg bés la ko yàlla jaarale di ashura bés ni ki fukki fan ci tamxarit la ko buur yalla dogal mu daldi arrêté kon victoire ba yàlla jox Muusa ci kaw Firawn ndigem bés fukki fan ci tamxarit la tombel moo tax yonent yàlla Muusa mu daldi ko woor xëytam ya ko topp ñoomit ñu daldi ko woor waaye koor googu yonent yàlla Muusa woor bés bi keroog bu mu ñëwee Madina mu fekk juif yi di ko woor mu ne leen man maa leen gën a yey ci Muusa yonent bi woor bés bi mu digle ne ko ne na na ko juliti woor yonent bi woor bés mu digle ne na ko juliti woor yéen a ngi fàttaliku bi léegi keroog ba yonent bi dikkee madinatul munawwara newoon na leen bu ma yàlla bàyyee fii ba déwén dinaa woor juróom-ñeenteelu fan bi boo boole ko fukkeelu fan bi ngir ñu am distinction wuutele ba jaar suñu diggante al yahud ndegem yahud ñoom dañuy woor fukkeelu fan bi ñu di ko wooroon door ñoom kon bu ma fi yàlla bayee ba déwén dinaa woor juróom-ñeenteelu fan bi ma wuuteeg yahudi la nga xamante ne mooy koor gi waaye ànd loolu ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu nee na anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam siyaamu yowma ashura axtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablahu axrajahu muslim ki yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam nee na woor fukki fan ci weeru tam xarit de maa ngi am njort bu rafet fa sama boroom mu jéggal ma bàkkaar ya ma jiital ca at bu weesu kon ndegem yow jullit bi yonent bi sallallahu alayhi wa malay baaxe xadis bi du moom moo tax a jóg wax bañ lay wax ni ndax moom de yàlla da ko ne jéggal naa la sa bàkkaar ya nga jiital ak yu mujj yàlla da ne ci suratul fatxi li yaxfira laka taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka lii la ko yàlla wax mu ne ko jéggal nala sa bàkkaara ya jiital ak bàkkaar yu mujj ngir xéewal yama matale ci sa ndodd ngir xéewal yama la mataleel ci sa mission yamala sant kon yenentu bi xadis bi du moom moo ko tax a jóg yàlla jéggal na ko bàkkaaram ya mu jiital ak yuy waaja ñëw kon moom amul bàkkaar ya mu jëf ak ya muy waaj a jëf mais ànd ak loolu baaxee na xeet bi ne woor fukki fan ci bésu tamxarit de maa ngi rafet njortu fa yàlla mu jéggal ma sama bàkkaar ya ma jiital ak bàkkaar ya nga xamante ne jiitul na ci at bi bu ne bàkkaar ya nga jiital yow jullit bi mooy atum ju nekk ñeent téeméer ñeent fukk ak juróom ba ñu génn quatre cent quarante année ba ñu génn noonu la ñuy déggee at bu jiitu waaye at bu bees ba ñu nekk ni weer bañu ñu nekk nii mooy njëlbeenu weer at boobu mooy mille quatre cent atum junne ñeent téeméer ñeent fukk juróom benneelu at ci gàddaay bi ca nekk nii kon boo buggee ñu jéggal la bàkkaar woowu dangay woor fukkeelu fan ci weeru tamxarit bu dee fukkeelu fan bi rëcc na la de ah xanaa nga dabal ko daal ci fukkeelu fan ak benn waaw ah, waaye yenentu bi nee na daal pour wuute gi yahud gi juif yi ci anamu koor ba ñuy woor bés bi képp ku mun a woor juróom-ñeenteelu fan bi ak fukkeelu fan bi baax na fukkeelu fan bi bu la rëccee ah, fukkeelu fan ak benn mooy onzième jour bi nanga ko ci dab waaye nag góor góorul fukkeelu fan bi cala la bi joxoñ moo tombek bésu ashura ashura ci arab nag mooy dixième jour ci weer wi kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu boroom fukkeelu fan bi lépp la fa nekk ci xeetu ñaan yàlla nañ leen kaka ñaan at bu bees ba nga xamante ni ca lañu dugg yenn doon atum naataange atum jàmm ñañu yàlla jiitalal ñu saytu suñu wàllu njiitu réew ak ña ko ŋànk yàlla leen yàlla jàppandalal nasaluka ya allah an taxfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma aimmatana wa wulaata umuurina amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a jotaay bi ñi war a tas xibaar ci nasaraan ñu ngi nii taxaw ñu war leen jébbal béréb bi ñi ñaan yàlla suñu boroom lépp lu jub ci kàddu gi yal nañu ko yàlla nangul lépp lu ci dëng nag ñu ngi koy ñaan yal nañu yàlla boole jéggal ñu di leen wax ne déwinati leen wa kullu amin wa antum bi xayr aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha lii wa lakum fi lii wa lakum fi l quran wa nafaani llahu wa iyaakum bi ma fihi min al ayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu